Cheikh Diop moo nekk ca bopp ko li xew ci mairie yi collect li ñu koy wax collectivité territoriale ñëpp xam nañ ko ñaari at a ngi nii liggéeykat yooyu ñu ngi ci xeex ñu ngi ci komba te ba tey ji solution amagut mbir mi egg fu nga xam ne synthèse force du amatuñu droit toog di seetaan moo tax ñu ne tey nañ woote yëkkati suñu kàddu yëkkati suñu kàddu jëmale ko ci suñu nawle syndicaliste yi ñun jàpp nañu ne autorités yi war na mën a trouver solution CNTS force du changement en tout cas proposé na ay solution te jàpp nañu ne dara warul mun a tere mouvement syndical coalisé wu ci problème bi ñuy wax ministre bi génn ne di wax ak maire yi ne leen fexe leen ba service minimum am loolu jàpp nañ ne du du warul nekk déclaration déclaration kay mooy fexe ba Euh, ay solution am ci ci problème bi waaye déclaration boobu tax na ba CNTS/FC jóg parce que ñun ñu ngi ko jàppe ne déclaration casse grève la dafa bëgg damm rëq ndigu grève bi te loolu nag duñ ko nangu